Euh, ñëwaale tamit présenté ko suñu événement parce que comme ñun gisee boo bokk léegi mu nekk père ci ñun ñëwaale àndaale suñu xarit Pape Thioune euh, nga xam ne agent joueur organisé nawetaan Paris tamit andi fa andi ay mbër tamit moo tax ñu ñëwoon euh, ñu ñëwoon tamit pour présenter ko concept bi et tout ça c'est si c'est spécialement ça surtout nag li gën a jiitu jaale bi la voilà di la di bu baax épreuve yi nga jàll ñaanal Père Mbaye Gueye fi mu dë tëdd yàlla gënal fi mu tëdd gënal ko fi mu jóge xam ne ñun moom suñu papa la ndax doomam suñu xarit la ça fait plus de vingt ans te yoon la ñu ñëw fii tamit seet si la euh, pour présenter la suñu projet li ñu bëgg a def yëpp voilà parce que xool nañu tamit nga doy ñu ci daal. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu téléspectateurs yëpp euh, tey nag sunu ñëw fii li ko waral mooy dañu ànd ak sunu xarit bii di Alain Alain Ngom man moom nga xamante ni ànd nañ lu yàgg France euh, may tëgg benn événement boo xamante ni nawetaan Paris lañ koy wax donc euh, cette année ñu naroon ci boole ay lutte ay lutteurs. donc euh, ay lutteurs am laa utiliser woon pour mu ñu mën a ñëw def événement bi donc euh, tey nag mu doon ñëw pour jaalee per père Moustapha mu woo ma ne ma tey dañuy dem jaale per Moustapha et puis présente ko concept bi bi mu waxee loolu ma ni ko loolu moom lu ma jàppoon dama koy bàyyi parce que li ñuy wax naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun ñëpp yàlla lañu ci yàlla la ñuy delluwaat. et puis euh, voilà ni ko père ñu ngi lay jaare sunu maam jooju nga xamante ni champion la woon on n'a pas eu la chance gis li mu réaliser ci Sénégal dañ koy dégg rek à travers sunu papa yi ak sunuy maam yi mais c'était un grand champion suñu demee ba nga xamante ni dañ naan Senghor dafa war a jàll en tant que président de la République moom mu xaar Mbaye Gueye jàll man je dirais chapeau chapeau mais nag comme on àdduna noonu la cycle la rek waaw ñii dañuy dem ñii ñëw c'est comme ça ainsi va la vie daal di ngi lay jaale sunu maam di la massawu di la wax ni Sénégal bi yëpp a koy partagé wu ak yow c'est un honneur d'être là ñu boole ma ci émission bi ma ñëw di la di la massawu waaw waaw waaw euh, comme li ñuy wax rek fekk moom ma ci boole ah <laughs> dama ñëw tey Alain boole ma ci pour ma ñëw euh, jaale père donc euh, man aussi di ko présenter waale aussi sunu concept amaana mën na ko dégg sax mais du xam exactement lan la projet nawetaan de Paris à la base dañ ko defoon mu nekk tournoi de foot qui parle de nawetaan xam ni nawetaan euh, à la base bu ñu ko dee jël Sénégal tour Sénégal tour Sénégal la nawetaan moom dañ naan vacances la léegi du nit ñi dañ ci doon def vacances mu amoon ay théâtre ay football et tout mais nag concept bi léegi dafa changé dem ba nga xamante ni tournoi de foot la boo xamante ni gars yi dañ ko fonk lool daal donc ñu nag ci concept boobu lañuy ñuy wu ni pourquoi pas ñu def ko en France bu ko defee en France dina permettre les Sénégalais de la diaspora retrouver wu dans un but boo xamante ni dinañ mën a dimbalante parce que dañu sentir ni en France comme à l'extérieur ku ci nekk da ngay toog sa ruq rek di liggéey loo am yóbbu sa kër mais bu ñu toppandoo ñi nga xamante ni yeneen xeet yi la je veux pas citer nga xamante ni ñoom foo leen fekk en général dañuy booloo waa ah, booloo boobu nag moom laa xaw xalaat ni pourquoi pas ñu def ko waaw parce que war nañu mën a booloo def benn concept boo xamante ni chaque chaque année ñun sénégalais yëpp dañ ciy mën a retrouver wu et puis aussi xool sénégalais yi nga xamante ni dañu nekk ci situation yu précaire ñenn ñi nga xamante ni am nañu doole yàlla dimbali na leen ñu mën seen bopp ñu dimbali sénégalais yooyu nekk ci suuf nga xamante ni ñoom aussi dinañ mën a ñëw ba xaw a tolloog ñoom tuuti même bu leen jotul aussi ñu tollook ñoom tuuti élan de solidarité boobu lañ ci dugal daal waaw moo tax nag ren ñu bëgg a dépassé waat beneen palier palier bi ñu bëgg a dépassé mooy euh, du yem rek ci football parce que yi ñu def yëpp dafa nekkoon football ak euh, ak musique donc football musique euh, voilà donc on se dit Sénégal du football ak musique rek y lutte te ñun ni ñuy bëree ñun rek ñoo koy bëree ci ci àdduna bi si je me trompe pas waaw boole ci ay xar fa fuufa takk ay fii tout ça ñàngal tout ça loolu c'est beau et puis euh, tubaab bi dañuy bëgg gis loolu suñu culture boobu donc aspect culturel boobu tamit ñu dugal ko ci ren ma waxtaan ceeg Alain la preuve à la à la à la à la base sax man j'avais pas pensé à ça euh, franchement parlant mais Alain moo ma Paco pourquoi pas nga def ci tuuti mbër yi ñu xool affaire yi xaw a am tuuti kii ma ni ko pour pas parce que man je suis ouvert à tout hein après ci lañ dugal affaire yi ñu xool gis ni c'est très intéressant pourquoi pas ñu essayer ko donc bu ñu koy essayer nag mbër moom defe naa ni boo ñëwee ba ci Moustapha Guèye sama papa Moustapha Guèye laay wax sax moom euh, ñun ñëpp idole la ci ñun bu ñu bëggee tey làmb vraiment en toute sincérité moom moo tax du Tyson même Tyson day wax sax naan yaa ko ci dugal ñun ñëpp bon donc pour dire la vérité rek quoi am na sax benn film bu ma seetaan boo xamante ni yaak Tyson yéen ko joué donc yooyu yëpp dafa nekk ci loo xamante ni dafa dafa neex en fait donc bu ñu ñëwee tey fii bay waxtaan ak euh, père père Moustapha pour présenter ko sunu projet c'est un honneur je dis waaw ah, c'est un waaw. delluwaat rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii nag moom julli julli mbokkam dèjà yëpp ne kenn génn àdduna nga ñëw masawu ne ko sigil ndigaay mooy sigil li ñu bokk loolu rek c'est soulageant xamante ne day métti ci ay aji ki mu dal ah, li koy giifal di ko wàcce nag moom mooy dem ba gis ne Sénégal yi kat ñu bokkal axlu làmb ñëw nañu masaw ma coono ki nga xamante ne kenn la aussi ci làmb ji waaw mënuma nag nekk fii di cité ay louange Mbaye Guèye ak lu mu def ak lu mu def li mu def daal moom Mbaye Guèye yàlla na ko yàlla yërëm ci fu mu tëdd mu ngi fi ne weng ah je pense que très tôt la commencé dugg ci làmb et son première victoire bi gën a extraordinaire ñu koy gën a coow mooy Mbaye Guèye Robert ñi ne c'est en c'était en 66 ñi ne c'est en c'était en donc day am day jamono yooyu day fekk moom 20 ans wala 21 ans am 20 ans ou 21 ans détrôné monument bu toll nii Mohamed Ndiaye Robert jouf loolu raar na ci làmb suñu champion yëpp bu ñu amee diggante 25 ans 30 ans la ñu nekk fii ay grands champions. moom nag nekk na très tôt un champion un grand champion te li ko dugaloon moom mooy suñu wayjur daaw dëgg yàlla na ko yàlla yërëm dafa teel a gaañu en 1964 mu dugg ci làmb ji donc moom bu muy dugg ci làmb ji 17 ans 18 ans la am dugg ci làmb ji aujourd'hui yàlla jël bakkanam à l'âge de 75 ans alhamdulilah rabbi alamin ñi ngi ngeen sut ko fan ñu tam ñu sut ko fan aussi dese barke bi ah leen gërëm leen sant nag question yi ngeen ma posé confiance bi nga am ci man ba bëgg ma servir leen de conseil ci lu jëm ci làmb mu mel ni nag kon Moustapha Gueye boo ko fekkee mu toog leneen loo ko laaj rek mu conseillé ci dina bu ci waxee dañ ko war a mun a weddi mbaa ñu mun ko sikk mais lu jëm ci làmb diggante fu ñuy diggee ci làmb jaak fa ñu taxawee la combat fu ñuy bëreeg ñaa ñan war a bëreeg ban combat moo neex ban moo neexul loolu moom bu ñu yëkkatee kàddu wax ci moom ah la majeure partie dañ ne gongu kat ah kii waxee xam na yàlla nag tombe aussi quand même waa rent Dakar tëggoon gala boo xamante ne man dafa ma impressionné noonu ma doon laaj kan moo tëgg lii kii naka la mën a boolee vingt mbër yii ci benn galaa loolu moom yàq la ndax benn combat bu nekk ci combat yi ngeen tëgg moo nañ ko éclaté mu nekk un grand combat ngeen am vingt journées accompagné d' autres jeunes ngeen dëxañ ko ci benn combat c' vraiment pour faire plaisir aux amateurs de lutte ak indi yu bees àddina nag moo laaj innovation bu ñu fi bëggee nekk rek ci jamonoy Fodé Doussouba jamonoy Fallaye Balde jamono Mbaye Guèye di wàcc ba ci jamono Tapha Guèye yu paase yu xew yooyu kon day mel defuñu dara a ak nouvelle technologie bi esprit bees yi am intellectuellement yéen a gën a loti donc àddina vous appartient la vie appartient lavenir avenir appartient à la jeunesse àddina pour ndaw la bala nga xam léegi ñu génnoon di dàqe di ngeen ma raw ba àgg seen kër sangu ba set di reer di du ma noonu la àddina demee te xëy na 30 ans ci ginnaaw bu ñu dàqantee du ngeen ma sax gis noonu la àddina te donc àddina c'est pour la jeunesse jeune ngeen nag am ngeen ambition ñëw dugg ci làmb gi nag ñun di dugg nag ci milieu dugg ci milieu boo xamante ne dañ ne coow koy commencé coow ko jeexal dama ko lu coow di commencé di ko jeexal mënta baax malheureusement nag suñu mbokk communicateurs yi noonu lañ koy communiquer ngéwél ma parlant mais nag sa daal kuy dugg ci dañ naan booy dugg ci dara xamante yi génn ci alhamdulilah alamin waaye coow koy commencé coow koy jeexal daal man ànduma ci boobu daal moom ñu ngeen di ñaan rek ci barke département léegi bii ngeen dindi boobu boobu façon communication lamba bi coow koy commencé ci coow lay commencé coow lay jeexal daal dëgg yàlla gaay dañ ko teggi tëg ko ne ci barke lii fi jógee barke Demba Ndiaye te naan dañ ci dugg ci bismillah rahmaan ci alhamdulilah alamin alhamdulilah sant la mooy ngeen dégg seen combat dégg vingt lutteurs muy dix combat ngeen ñibbi seen kër ci guddi gi xool seen trésorerie yi xam na pertu leen même su ngeen pertu leen mais dugg ngeen seen ay fonds loolu ñëpp bëgg Abdoulaye Diop Matar l'ancien ministre des sports doon wax naan euh, euh, jaay perte ak dawal daanu yomb na ku ne mën na ko mu ngi jënd sa saako ceeb vingt mille francs bu neexee nga jaay ko sept mille francs waaye boo ñibbee kër ga di nga xam ne perte nga treize mille francs ainsi de suite quoi donc nag suñu conseil ci ñun mooy il faut y aller lentement et sûrement gis ngeen seen morom promoteur yu bari ñëw nañ ci làmb ji dugg benn komba ñaari combat am ay jafe-jafe yu jeex ba tey ñu accroché wu nanguñu bàyyi am ñu ci intelligent seen mbokk yi lakkal leen ñu rocceeku mais yéen quand même ni ngeen gisee nii ah, ngeen ñëwee ci système bi xëy na yaa ngeen nekk làmb si daan làmb yaa ngeen bugg làmb mais daal li ci ëpp solo rek mooy vous avez no conseils lu ñu leen accompagner lu ngeen laaj te nga dara daal dañ leen ci wax lu ñu xamul it seeti ki ko xam. wax ñu ko encore il faut vous vraiment il faut être ami avec le CNG de lutte parce qu'ils son là pour redresser la lutte ils sont là pour faciliter le chemin CNG bu sañoon képp ku tëgg lamb da nga koy réussir ndax bu ñu ko réussir ñoom ñoo échec échec yi ñuy jiñ promoteur yeeg mbëri déedéet échec bu amee làmb rek dañu koy jiñ ki nga xamante ne mooy la tête pensante mooy ki nga xamante ne moom mooy le démembrement d'État fa ngay amee licence fa la ñuy noccee fa la ñuy noosee ñoo ngi nag fa ngeen saxoo seen question yi ngeen di soxla ngeen koy posé teg seen loxo ci taabal ji ba ñoom ñu ngi leen accompagner comme il le faut ils sont là pour ça ah. malheureusement gis des promoteurs contre du CNG ou bëgg def face au CNG te loolu leen arrangé parce que CNG aussi ay textes ñoo ko régir ak ay ay lois yoo xamante ne ci la ñuy jaar dinañ sax yenn saa yi jéggaleeg jëlale mais bu ngeen approché seen ay nijaay fa nekk seen ay papa fa nekk ils sont là aussi pour ça donc daal di leen encouragé te xam ne li ngeen dëgg. énorme na façon boo xamante ne man bu ko déggee xaw ma leen gisuma leen nee naa ñii ñan la ba keroog nag la dernière fois ça fait un moment avant ñu renvoyer combat bi puis leen passé na aussi lii daal dafa dal métti na yéen a gën a métti la ah yéen a tëgg seen combat bañ na suba la ndogal bi ñëw mais ndogal boobu nag ndeysaan ndogalu coow la woon rek nekkul ndogal bu fondé parce que man euh, musuma gëm ne gouverneur moo tëj làmb donc communication boobu tamit dama bëggoon génn ci gouverneur musul tëj làmb amul droit tëj làmb amul ndogal sax tëj am na nag yeneen pexe yu ñuy contourner pour tëj làmb moom mooy interdire la police de venir faire la sécurité te ku nekk xam ne làmb ci texte yi ko régir ak loi bi mooy ku amul sécurité doo tëgg làmb sans pol sans la police làmb du am donc su gouverneur tëyee police mooy làmb amul fi mu leen dale métti na trop di masaw aussi mbëri yi nga nommé woon pour ñu bëri ci boobu ñenn ñi waajal nañ ba togg añ ñenn ñi ñu xamante ne def ko ci fu ne entraîné nañ fa yàlla dogal ko nag waaye nag li félicité aussi mbër yooyu nga xamante ne yéen la ñu waroon bëreel ndax ñoom tamit comprendre nañu adhéré nañ ci projet bi accepté nañ ko bu waajtaay jotee tamit yaakaar naa du ñu leen teg benn charge bu ñëw continuer seen entraînement xam ne yéen ñëpp ay partagé effort boobu yëpp euh, di fàttali Sénégal aussi que ne ah làmb nag bientôt mu yaakaar naa ne journal bi wax na ko bëgg na ko tey muy suñu làmb nañ le premier octobre la mbër yi commencé defarwaat promoteur yi commencé defarwaat lamb gi démarré le mois de novembre ñu bëree novembre décembre la vie continue yàlla nañ fi yàlla teggil lii nga xamante ne mooy mbas mi ba ñu mën a fees dell ci lamb gi dara ñu jot ndax gis nañ ne kat football ngi am basket di am discipline yëpp di am waaye ñooñu nag dañuy def lu ñu naan discipline ñooñu dañuy ñëw indaale seen passe Covid ñu nekk a tuddee passe Covid ñàkku laal gel takk seen masque def distanciation dem seetaan ko. maa ngi gis championnat yi Angleterre yi di jël jëli mais bu ma laajee dañ ne ma ñii ñëpp dañoo vacciné wu ba pare ils ont fait les choses comme li mu war a am. Sénégal nag ñuy def rek ñoo cee mujj dugg te ñoo cee ëpp làmmiñ ñoo cee ëpp xajamal damay joxaat encore gars yi rendez-vous ne yi suñu devoir la bépp Sénégalais nga dem ñàkku ci vacciné wu ji bokk ñàkk mooy vacciné wu ah en wolof ñàkk en vacciné en tubaab ñàkk en ji. féexal sa bopp féexal ki nga dendal bien vrai que c'est pas obligatoire mais ñu ngi jëm dans le monde boo xam ne obligatoirement booy dugg ci avion yi day fekk nga ñàkku booy dugg ci supermarché da ngay ñàkku booy seetaan marché da ngay ñàkku kon mbokk buñ ne làmb ku koy seetaan da ngay ñàkku même bu amul léegi it dana mës a am dans l'avenir suuf liy jógewul waaye li ci ëpp solo nag ëpp ci njëriñ nag mooy yàlla na ko fi yàlla jindi sànni ko si àll ba te mu fi ñëwati euh, maa ngi desuwaat aussi ci sama beneen bis bu wax euh, Cuun moom nag doomu Ndakaaru la ndax tukki si ñaatali moom ñun fa la ñuy jàng mbapat mbapat Boy Bambara ak mbapat Birahim Ndiaye ñu nekk ay jeunes yu am ay 17 ans 18 ans def suñu apprentissage foofu exemple bi Moussa ñëw bëri ba pare Boy Bambara yàlla na ko yàlla yërëm moom tam mooy jiitu mbéy géey na ko yàlla yërëm xare ko àjjana kon tam c'était un grand formateur dëkk biir usine ñaatali yi ak Grand Dakar doon bëreeg mbéy géey doon bëreeg ne adversité bu rëy moo amoon ci moom moom moom Aliou Camara booy bambara ak ñoom Mbaye Guèye ñoom maam Gorgui Ndiaye moom danaan tëgg mbapat ñoo fa di bëre suñu paree muy jox paas ñuy naan tànganaa boobu tànganaa xew da ngay bëri ba pare mu tas nga dugg tànganaa jël kilo mburu defale ci mayonnaise ak kaasu tànganaa nga ne teel lépp dem tëdd nelaw c'est ça kon mbapat yi ngay yi ngay def en ci côté football nga dem ba xalaat ne sa dëkk dafa am cosaan am aada muy làmb lépp loo xam ne mbër da koy jëfandikoo mu jëm ci waaru aada ministère du sport nga bëgg ko déglu ci bëtu français yi naam c'est bien waaye tamit am nga projet bu diis ndax gaa yu bari jóge nañ fi jël ay mbir yóbbu Europe ñu bëree et réussir ñu ko mais du ko war a mën a réussir bokkul ak terrain ñoo bokkul wax naa sax ne la niveau technologie ba ñu am làmb boo ci bëgg a tëgg tey jii di nga ko mën a jaaxale fi nga ko war a jaaxale yëpp ba ñëpp xam ko mu ñëw assister donc ñun tam dañ lay encouragé te xam ne ah am nañ suñu mbir yëpp suñuy doom la mbër yëpp ay mbër lañu nag ah ñu encadré leen jàppale leen dem ànd ak yow ci projet boobu te ñu xam ne projet nag boo xoolaat premier chose bi njëkk am dañ naan pilote boo demee ci dañ naan ah kii nag mooy pilote bi moom mooy numéro zéro nga def benn émission ñu tudd ko zéro te fekkee def nga émission bañ passé ko ça veut dire bu njëkk bi moom dafay difficile bi ki toppaat nag dafa war a baax parce que léegi goor soo pour être petit bu ñu baatee record cent dix eh, a ko baataat jël yu rafet yi dafa war a gën a rafetaat àddina moo demee noonu kon boog delluwaat encore rek une fois dellu siwaat ci contexte bi leen tax tax ñëw fii moom mooy jàlle si seen baay seen maam Baye Gueye njabootu Tigre de Fass yëpp ngi leen di delloo njaal ah di leen gërëm leen sant te leen naan aussi ñu yéex koo fayante yàlla bu ñu fi jógee mukk ñu ngi leen jaale si naam dana am waaye yàlla na sorente yàlla na yéex ci gàttal daal ni ko di waxee yàlla nañ ko yéex di leen di leen gërëm di leen sant tamit oui. en fait euh, saison bi moom bu ñu ko tijjee logiquement kenn bañ a bañ a taxal waaye nag mu mel ni rek kon buñ ne par exemple ren dakaar ñooy njëkk ubbi ren dakaar bu jekkuwul tamit ko toppoon ca gannaaw bu jekkoo mën a jël place ren Dakar ren Dakar jàll ci ginnaawam il faut que les promoteurs aussi entre eux jàppalante ku nekk combat li ñu soxla ñun CNG ci naa ci wax ci à la place de gis nañ annonce bi aussi ci journal kontaan nañ ci monde yëpp te naa ci gën a communiqué Sénégal yi gën a xam ñu gën a la lutte le président Bira Sène ni ma ko waxee moom mooy day commencer day commencer par le commencement waaye ci biir par le commencement nag acteurs yi mën a gis seen seen ku nekk seet fu mu baaxee ci yow tamit du ci yàq dara day bu baax rek kon bu ngeen di souhaiter bonne chance et beaucoup de réussite combat bi ngeen tëgg am na solo combat bi ngeen tëgg am na maana ay daan la ko bëre ngeen di souhaiter lamb ji fees dell ngeen réussir ko bañ am benn histoire bañ am benn bagarre ñu xam ne lamb dekkiwaat na ren Dakar pour ngeen déclencher lamb ji ñun bu doon suñu sago sax yéen a njëkk a tëgg déclencher lamb ji gars yi namm nañ ko ñëpp nga ñam ma ñam mi kenn amul foo jëm te à coup sûr bu ngeen démarré seen lamb jooju premier jour boobu moo nar a battre record record d'affluence ndax ñi ngeen tëgg jar nañ ko yéen ñu ko tëgg aussi Sénégal yi war nañu appuyer le CNG sera prêt il va redoubler des efforts pour faciliter leen tout ce qui est chose et le va faire tout pour vous accompagner pour ngeen réussir ko un promoteur réussir un gala de lutte mooy a